maa ngi tudd Djily Diène euh, di président Arcos tuba waaye tey kasketu président Arcos Touba indiwuma donc euh, tey sama kilifa moo toog nii Ndongo Fall ak sama collègue yi nga xam ne ñoo bokk di liggéey Galas Fall Cheikh Cissé donc voilà ñun ñoo ñoo fi teew tey pour euh, def déclaration bi nga xam ne ñëpp ñu ngi koy amal ci àdduna jëmale ko ci théâtre maanaam màggal bis bi nga xam ne mooy bisu àdduna bi ngir màggal théâtre tey dañ fi daje ngir màggal bis boobu commencé ko par sant yàlla bu baax a baax moom bi nga xam ne moo ñu kàttanal ñu mën a toog fii ngir màggal bis boobu ginnaaw loolu euh, ñu sant bu baax rassemblement bi nga xam ne ñoom ñoo organisé bis bi ndax rassemblement bi euh, li nga xam ne ñu ñi fi yàggoon a nekk di dundal théâtre li nga xam ne euh, joué nañ ko ci seen rôle bi mu jàllee yëf yi mënoon na fa yem mais ñoom ñoom itam bi ñuy def nañu wax dëgg yàlla seen rôle bi nga xam ne moom lañ doon xaar ñoom ginnaaw loolu nag message bi ñu jàllale tey occasion la euh, journée bi tey ngir ñu mën ko jàllale parce que tey ji yaakaar naa ñu bëri nañ dañ dañ danañ xool ci euh, côté théâtre message yu ay message yu euh, yu ñu maanaam déploré la maanaam message yu ñu mititlu la message yu mititlu rek la parce que tamit nit ki boo amee sa bis li nga xam ne moom nga war a am muy sa àq ak sa yelleef te jutoo ci yoon la nga fésal ko ba ñëpp xam ne lii sa àq la sa yelleef la boo jotee baax na boo jot baax na waaye yow xam nga say droit donc loolu loolu lañu li njëkk mooy amuñu ay infrastructure maanaam amuñu ay bâtiment ak ay ay euh, maanaam ay makkaan yoo xam ne ci la war a amal euh, événement wala boog activité culturelle comme ni ñu ko war a amee te loolu jàpp nañ ne ki ko euh, ki ki am compétence bi nga xam ne moom moo ko war a def moom mooy ñi fi teewal état ñi fi teewal son excellence le président de la république non seulement nosu nañ mais ñi nosu sax des fois ñu am nosu ñu nosu ba pare ci ay këyit wala boog ci wàllu yoon waaye ñoom ci seen biir ñu am problème mais fii moom ci ginnaaw mënoon nga ne tasaaroo nañ ci wàllu maanaam li concerné Bawal waaye jamono jii may wax ak yow non seulement nosu nañ parce que kuréel goo fi tudd ci ci wàllu këyit daal mën naa ne jàpp naa ne te muy lu wér loo xam ne ñëpp ñëpp toog nañ si parce que bu ma tuddee tuuri lu mel ne ARCOD sax ñëpp xam nañ ne c'est national am nañ fi cellule bu leen fi représenté lu mel ne caada c'est une association nationale am na ñu leen fi représenté te yooyu yëpp waxuma art et culture mais ce sont des associations euh, associations purement théâtre théâtrale ni ñu ko ni ñu ko màggalee mooy euh, li ñu jàng rek ci formation ci théâtre mooy échange foo man di dem échange même spectacle euh, théâtraux yi ngay seetaan échange moo ci ëpp solo pour yeete la am loo fa jàngi depuis 9 heures commencé nañ ko avec des avec des de formation formé formé acteurs yi Euh, defal leen ñu de classe bu ko defee yeewaat leen delloowaat leen ci euh, règle métier mi euh, ñaaxaat leen pour ñu xam ne am na lu leen di xaar ay défi bu ko defee ñu waajal ko donc ay atelier de formation amal nañ ko de 9h bu ñu eggee ba 10h aussi def nañ def nañ def nañ panel panel baa ngi door jeex bi ngeen di ñëw ab bi ñu añee pare ñu continuer panel bi ba ngeen ñëw ñu def déclaration bi loolu mooy daanaka. liñ jotagun a def te xam ngeen ne ci kanam tuuti ñu ngi waajale spectacle fële ca théâtre verdure te bu soobee yàlla daañu fa daañu fa dérouler ay façon euh, théâtre yoo xam ne euh, du doon benn facette maanaam daa nit ñi comme niñ préféré muy ree muy comédie te yéen ñëpp ngeen xam ne art la bu ñu bu ñu bu ñu définir euh, wàllu wàllu tragédie wàllu comédie wàllu wàllu wàllu dramatique yooyu yëpp wala boog drame yooyu yëpp bu soobee yàlla fas yéene nañ ko màggale pour wane ne théâtre moom bu fekkee ni jàpp nañ ne dee na itam ñun moom deewut ci ñun te daañu ko màggal tey. mooy rôle wala boog wareefu euh, képp kuy yëngu ci wàllu théâtre wala boog culture mooy yeete imaam yooyu li def moom lañu war a def parce que mooy rôle ñi waroon ñi ñuy kaas sax li imaam yi doon def ñoom loolu la waroon def mooy taxaw di yee peuple bi taxaw di defaraat comportement wu peuple bi bu ñu demee nag bay jàddu yoon imam yi contre ñu taxaw di présenter ay pièces théâtrales pour yee sa société liñ liñ li li imaam yi di kaas ak di leen ci delloowaat mooy façon bi ñu koy defee donc façon bi moo baaxul te loolu téléfilm la ça n'a rien à voir avec le théâtre théâtre moom ay règle la yoo xam ne munoo koo wàcc parce que dafa am ay règle yoo xam ne boo ko respecté ci théâtre am na loo xam ne mënoo ko def di choquer sa public te lépp loo defee di lépp looy def di choquer sa public euh, boo ko tuddee théâtre yow yaa ko tuddee théâtre waaye comme ni ngeen ko xamee ci écran yi la kon téléfilm la waaye comme ñun on évolue dans ce milieu loolu mën nañ ko jàppee mën nañ ko considérer théâtre ci appellation sénégalais yi waaye imam yooyu ñun ñu nag ñoom ñoo ànd parce que ñun duñ d'accord mukk ci bépp représentation dramatique boo xam ne dañ koy def di ci yàq deru askan wi wala ñu ci yàq jikkoy askan wi wala ñu ci yàq maanaam xar xar kanamu réew mi ba ñeneen ñu koy xool jàpp ne réew mi kat dafa doon réewum pagaay moo xam théâtre nga koy jaaree wala musique wala danse lu mën di doon daal ànduñu ci imam yooyu daal li def loolu la war a def. initiative bi d' abord dafa am ñaari ñaari sens am na sens bu général mooy d' abord la journée mondiale du théâtre moom ñëpp xam nañu ne Vienne la jógee association internationale du théâtre ñoom ñoo ko njëkk a mu journée boo xam ne ni ñu ko jaglelee jigéen ñi jagleel ko ndaw ñi jagleel ko journée maanaam yaay yi jagleel ko. journée de pères et des mères comme ni nga koy wax journée yooyu am na ci benn bis boo xam dañu ko jagleel théâtre mooy tey ji donc initiative foofu la jógee en général mais dajaloo bi tey ji nag moom xalaat bi mu ngi tukkee ci ñi nga xam ne ñooy waa rassemblement muy muy muy muy comité bi nga xam ne ñoom ñoo taxawal ñoom ñoo jug taxaw ngir dajalewaat kuréel yooyu yëpp ngir kuréel maanaam ma nga maanaam mbooloo mi mën a nekk benn jëmm ba lépp lu ñuy xëcc ñu mën ci jot te ay xale lañ puisque ñoom ñëpp ay jeunes lañ ñaar yëpp Mbàkke tey man mi di wax ak yow maay président ARCOS bu Touba kii mooy président ARCOS bu Mbacké bu Mbacké moom moo ci moom mooy suñu kilifa ARCOS c'est national du théâtre sénégalais national du théâtre am na ARCOS national démb le président a invité ci ci ci télé télé doon na leeral lu bëree bëri ci ci association bi waaye tey jii moom dañuy fàtte tey moom théâtre la ñuy wax léegi nag loolu nga xam ne moom la ñuy déplorer aussi da cee bokk fonds yi nga xam ne waroon nañ ci jot te jotuñu ci te ci ARCORS boobu déposé woon nañ suñu liste comme ni ko ñeneen ñi defee am na ñu bari ñu jotut waaye ñun loolu concerné wuñu bien vrai que <coughs> li ñuy wax bu ñu ko xasee ba wax dana làmb lépp mooy jaaral maanaam fi ñu ko jaarale moo dut yoon parce que ñu bëree baree bari jotuñu kon du yoon waaye nag plus particulièrement ñun li ñu waroon jot ci ci ci ndimbal jotuñu ko waxuma jotuñu ko waaye kenn ci ñun jotu ko te fi ñu waroon déposé suñu nañ ko fa te loolu yëpp mooy doxalin wu dëng ak doxalin wu luubu te loolu itam du lu ñuy rafetlu président de la république li mu waroon def def na ko jël na xaalis bi jox ko ñu mu ko war a jox même le ministre li mu waroon def def na ko le ministre de la culture Abdoulaye Diop li mu waroon def def na ko mooy jël na xaalis bi joxe ko waaye nag au niveau de la direction des arts ñoom li ñu waroon def defuñu ko parce que xaalis bi ni ñu ko gérer baaxul loolu nag lu ñu war a wax la parce que bañ nañ comme bay woyagul mbuus mu continuer nii parce que acteurs yi ñoo moom xaalis bi artistes yi ñoo ko moom nañu ko c'est destiné aux artistes xaalis bi nañu nañu ko jox destination boobu ko tax a jóg nañu fexe mu egg fa bu ko defee nit ñi xam ne président dimbali nañu sinon dañuy dañuy fakkatal président de la république te loolu baaxut ci réew mi baaxut ci moom ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, wasalaamaaleykum